te su si noppee am naa féq lay doon te bëgguma nekk am naa féq ndax lu jaaduwul li nga xam ne moo am ci Sénégal loolee dañu koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem dañu koy dénoncé Alioune Tine nee na injustice maanaam lu dul moo am ci réew te nag loolee maanaam munu cee noppi daf koy ñaawloo moom Alioune Tine daan wax ne Macky Sall bi mu nekkee situation bu mel nii maanaam daf koo jege woon lool doon ko défendre doon ko jàppale ci injustice bi nga xam ne moom lañ ko doon tekk kon nag bu ma gisee ne ñoo ngi jël injustice di am ñuñ koy tekk ñooñee mënumaa def lu dul dem ci seen wet di leen ko xeexle di leen ko dénoncé la moom Alioune Tine nee na amul ci kenn koo xam ne dafay ñëw sukkuraam jébbalu ci yow ci lu jëm ci wàllum na la neex mu koy ànd ak yow Alioune Tine nag nee na jamono ji koo xam ne yaa ngi wax dëgg wax li nga xalaata di dénoncer di ñaawlu lu jaaduwul li am ci réew mi ñu lay diaboliser di yàq sa der moom Alioune ci journal bi di réew mi quotidien nee na li nga xam ne moo war a leer ci réew mi maanaam mooy vingt-neuf milliards yu Prodac yi ndax nag bala ñu fee war a nekk nag naan affaire diffamation naan Ousmane Sonko waaw xaw ma difa diffamé Mame Mbaye ma la nag bëgg xam maanaam vingt neuf milliards yooyu na leer moom Alioune daan nay wax ne bëri ay ministre yoo xam ne wax nañ ci jëm ci wàllum rapport vingt neuf milliards yi mën la vidéo yaa ngi fi audio yaa ngi fi moom Alioune daan nay wax ne bu nag da fare ak nguur gi mën def lu ne weng dara du la ca fekk impunité waaye nag bu dafa indépendant procureur bi bu dafa moom boppam li mu war a dimbalee yi mooy fexe ba vingt neuf milliards yu product Libération yéenekaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall nee na programme bu Prodac bi mën la njombe yi girawaal yi nga xam ne moo ci am doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne maara détaillé mën la lii mujjee naa nekk ab syndrome boo xam ne corruption bu ñu généralisé wàllum délinquance boo xam ne doy na waar lool ci sunu administration bi programme bu Prodac bi mën na la promesse yi digg yi nga xam ne moo ci amoon amul lenn loo xam ne luñ ci def a info Thierno Alassane Sall nee na activité élevage yi nga xam ne waxoon nañu ko ci lu jëm ci programme mu Prodac bi maanaam dimul ci nga dikkul mbay laara point mora lu jëm ci wàllum courant bi nag électricité bi loolee moom bu ñu ko gisee maanaam ginaar moo sa xibëñ programme mu bii nga xam ne 36 milliards la Thierno Alassane Sall nee na programme boobu nag mooy responsable njombe crime économique yi nga xam ne moo am ci réew moo xam ne askan wi dañoo sonn ba xam ne moom la ñu dëgmal loolee moo yéemee journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy primo votant yi mën na la xale yaa ngi inscrire inscription baa ngi mel ni tulleeg yi xale yi engagement bi nga xam ne moom la ñu jël doy na waar yéene kaay gi di wal fajri ñu koy fekk fa Mamadou Ibra Kane nee na nag lu jëm ci wàllum respecté sa kàddu loolee dafa bokk ci sunuy valeur ma ngay wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall bi yéene kaay gi di Rewmi yu garaaw yoo xam ne maanaam musiba rek la ko jural ci lu jëm ci wàllum politique lii dal Idrissa Seck xamul lan la lan la laa xamul lan moo dal Idrissa Seck ba tey ci journal bi Assane Samb nee na Idrissa Seck lu jëm ci wàllum base politique am ñàkk na ko bakka ak makka yéen kaay gi di waa Grand Place ñu xëy fekk fa docteur Abdourahmane Diouf nee na logique ci wàllum politique mooy Idrissa Seck daal di ñëw soutenir sama candidature yéen kaay gi la Témoin ñu xëy fekk fa Mamour Cissé bu PSD jant bi moom nag nee na nii nga xamante ni moom la nguur gi di doxalee ci lu jëm ci wàllum politique moom benn yoon ndax na bëri na acteur politique yoo xam ne seen intérêt rek jamono jamono ki nga xam ne nag mooy Macky Sall war naa wax lu leer nañ war naa wax lu leer nañ daa di ne man du ma présenté wu ci élection présidentielle 2024 yéen a sa ñu xëy fekk fa Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne jamono moo fi nekkoon premier ministre bu Sénégal nee na muy opposition bi ak di pouvoir bi ñoom ñëpp jamono ji dañoo war a soobu si dialogue bi yéen a kaay gii de di ñu xibaar naan ñu Idrissa a ñàkk de Idrissa a la Quotidien collectif bii nga xamante ni moo ëmb ñiy xeexal askan wi nga xam ne dañu leen a jàpp ci anam boo xam ne dëpp wul ak yoon ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax arrestation arbitraire yi nga xam ne jamono ji moo am ci réew mi ñoom daam mbooj Clédor Sène ñaawlu nañ bu baax a baax ndax nee nañu lu ëpp ñeenti téeméeri nit ñoo xam ne ñoo ngi ci kasu bi te nag wàllum politique rek moo leen fu dugal yéen kaay gi di wal fajiri xëy duñu tàggee Ibrahima Sène bu PIT daan nay wax ne moom rek moo dëggaloon boppam ci biir benn bokk yaakaar wane ne àndul benn yoon ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat yàgg naa xeex ci lu jëm ci wàllum lutte sociale yeeg politique yi yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu liggéeykat yi nekk ci wàllum justice union nationale des travailleurs de la justice ñoom nag 48 heures ñaari fan yoo xam ne dañu koy dem ci grève liggéeykat yi nekk ci wàllum yoon ñoom ber nañu ba mara d'Italie ndax nee ñu jamono ji dañu leen di bund xatal di leen di menacer te nag loolee Ismaïla Madior ministre bi ñu dénk wàllum yoon moo koy def yéen a kaay nga xam ne moom lañu